Thank you DJ Yves ñu ràññee ko lool fii ci diwaanu Sénégal mu nekk animateur fa nga xamante ne moom mooy ca télévision DTV émission ba muy def nag ñu bari di ko seetaan fii ci diwaanu Sénégal mu duppee ko émission guddi gi fegoo ko yu bëri fii ci diwaanu Sénégal moom DJ Yves Mille moo daadee nag ñàkk magam bu jigéen bi nga xamante ne mu ngi doon wuyoo ci turu Ndeye Rama Ba Ndeye Rama Ba daan nay duna àdduna ni ki démb fii ci diwaanu Ndakaaru loolu loolee nag di tiis boo xamante ne nag dal na ci suñu natango bi nga xamante ni moom mooy DJ Yves mu nekk nag loo xamante ni kenn yéenewu ko ko waaye nag lu ñu def lu dul nag ñaanal ko yàlla moom sërëm bi lee yàlla yërëm ko nag daal di koy xare aljana woyofal suuf ci kawam ñu koy jaale DJ Yves di ko jaale képp koo xamante ne nag da nga yëngatu ci wàllum média